jërëjëf mbokk yi seetaan déglu mbégte ñu daal di ñëw indi savon bi nga xam ne mooy savon mélange 100 pour cent bio muy savon xam bi daanaka li ko tax a jóg mooy xeex lépp lu jëm ci wàllu acné xam ngeen ne acné am na ñoo xam ne daf leen sonal lool ba dafay feeñ ci seen i kanam sonal leen ba saa suñ ko gratté te doon benn tache boo xam bi day feeñ ci der wi te day yàgg yàgg googee day dem ba sax yàq seen der ba sax ñoom saa su ne dañuy wut pexe ngir lu koy saafara moo tax seen cabinet bio rahma indi la savon bi nga xam ne 100 pour cent bio muy saabu boo xam ne li ko tax a jóg lépp lu jëm ci wàllu acné lépp lu jëm ci wàllu tache moo xam ne tache cere wala tache boo xam ni picc ko def wala tache boo xam ni ak lu mu mën a doon daal bii bokk na ci lay saafara yi fii kon wooteel ci numéro bi ngay seet soo ko defee rek di nga am ci saabu bi nga xam ne moom ngay faral di ko sol jaajëf